À l'établissement Baye Frères, votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. À cet effet, nous vous proposons ce qui se fait de mieux en matière de confection de double vitrage, qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores, plus de transfert de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Baye Frères, c'est également un équipement biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. À l'établissement Baye Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse HLM 1, rue 13, avenue Cheikh Amadou Bamba, Dakar. Téléphone tuuba sar xol la ngir Seexu Bamba te dal di foor te balay nga muut gane nu biiw fa tuuba fotte su leen ngay tuuba sar xol la ngir Seexu Bamba te dal di foor te balay nga muut gane nu biiw fa tuuba tënk ku tey ñu ku tey kañ ahmadu sang bu mat ba ku am sëmbër ba mu am ndam yu xul tabak ca géew ba talam bu diine ji tey ci su mi lee di ba te kon subaat ba ñu njaabee ma jël përëw ngir ca tuur jox leen koraa yow tey ko yoon ba fa koy makaan madina ba saamu misra bu keman bu fa yaaba kenn ko ku moroom du gis ko ba booba yàlla ko def na mu mel moom kennal ko ber ko ca bam ne jalañ fi ci xaddun ba nin xëyee ñibbi Tuuba do ca moom lu ko gàkkal du wax du jëf du laram ba taarub jëfam ya ci diine jaxal na sax ñuy saxaaba taggi yu ni mu lamboo semal du sëyri wa kaaba ne leen ko askay wa askay sëriñ Cerno Masamba Baay Basak Abdou Khadar Baay Sëriñ Abdou Fadar Ba maami jambaar ji mu àndal mu toog jataay ba yàlla na am fana ko gu wér ëpp ndam ca liggéey ba te ndam looy li nu dëgg man ndamam la mook sangi Tuuba te mooy jumaa janu sampal sëriñ ba biir capital ba jumaa ju rëy la taxawlu samp ca biir diggi ba jumaa ja kenn du ko laajte na ne jant njoloor ba fu waay taxaw di ko seenu ma faw xalamp bu ngor ba ku ne ngi ba naa ci ma saali kaare ca taar ba mar boo mbakkal teen ba jaxal sax ni Europa lampam yi si tataar leeru guddeen ni bëccëg bee kuloori biir ya mu àndal geneen dëggi dékoor ba buntam ya ak mu yañ weeram ya wër cofu Bamba set gaag selam nga la boole set dug kilim yi ca biir ba liggéey ba wër na waloore du gis nga min baru door ba tapeem yu nooy yen ko maane fa tiru kilal ko ca dër ba sonoon ba set ga bu jolle na dam nga wees dëkk yoos ba te istijoo yamu àndal noppal na gaayu peres ba fu waay taxaw nañu lay gis kamraaya war na ko fépp te kenn du laaj te fu waxtu fu toll gis na toram ba xurum garab ya war na ëttam ba soroo ñi tolleet ca kaw juróom di limam ba man daal billaahi wallaahi i mootina ci sëriñ ba ngir bi tabax li ci dem ci milliard te yéen ku du Bamba du ab état ko financé du et di banque du bayti maal ya faasit du yooyu ko wet du tayba muriid yi ak ña ñu leen ne fa Tuuba ñu saytu bi sebabam nag defal ko Bamba fa gox ba ngir dafa jooyoon ndax am ne tiitu ca ba te sëñ ba mag ba fa jaaroon te yàlla yan ko yanam ba koy sonal di ko tiisal te koy metti tu nii ba ñaari guddeeg yanu siiw la ba mbaaya xal istuwaar ba waaye walaay mi ngi moom tey nga xam na mu góom jumaay Masaalikul bég la way fay na xar wa ca booba bisus juleem nga bu ak seen kañ fa Ahmadu Bamba tabis la nag lu waajal ko man ta teew ca jataay ba ko dooni ak fu mu dooni na ñépp ñëw ca baloo ba Cees ak Fatick Matam ak Ndar Kawlax Louga goxi Tamba Kaasa wa Sédhiou wa Kédougou dëkku or ba Kaffrine wa Diourbel mboolem man wi Bamba Afrique Asie Europe ak Amérique fu Rabba Kaffrine wa Diourbel mboolem Sénégalu wi Bamba Afrique Asie Europe ak Amérique fu